Ousmane Sonko def na poste boo xam ne démb ñu bari gis nañ ko muy ñaanal màggaluk jàmm ñu def ci ab photom def ci photo jumaa ji muy symboliser màggaluk Touba mhm, fa mu nekk. waa loolu de boo bu ko bindee lu ko war la su ko bindutit lu ko war la ndax euh, ñëpp xam nañ ni digganteem moom. Mhm. ak kilifa yi ñëpp xam nañ ko digganteem moom ak sëriñ bi tayit euh, boo demee bañ naan yaay deuxième personnalité bu Sénégal. Mm-hmm. te yàlla mën naa def sax déwén comme ni ko président Macky Sall waxee ni kenn am dana am keneen ku ñëw toog fii xam naa loolu sax bu kii bu bakkaatoon si point yi nañ sa mos tuuti ndax it. ni li hélas di wax naan nit wërta ñaane sa ndono. Mm-hmm. maa ngi koy am waaye benn vidéo léegi démb. mooy ki doon wax naan président Macky Sall waa APR lépp lu mu mas a bëgg léegi taxaw na ci. maanaam lépp lu mas président Macky Sall bëgg mas a bëgg. ñoom taxaw nañ ci kon nag bu ñu demee tey jii bañ ne bii mooy dar sama darñeel màggal pour toog ak Serigne taxaa déwén keneen a fiy toog waaye suma ma sañoon mu doon Aly Ngouille Ndiaye mii wala suma ma sañoon mu doon ministre de mii wala suma ma sañoon mu doon di ñaanal ko dénk naa la ko déwén moo fiy toog jàkk bu ko neexee sax mu ne ko déwén moo fiy toog du ma fi mm. mën a toog mm. waaye nag ñëw si Serigne Mountakha déclaré boppam wax ak boppam wax ak lépp ba léegi néewu ko kii moo may ràmpali loolu tey xel la si la ma benn waaye woon ma la saa njóogu waxoon ni déclaration bi in faut que ñu defaat ci ay taxaw seetlu ak yeneen ak yeneen loola da si daal di dikk. ndax hmm. tey jii sooy bu man ma lay tàggu nii ne bii mooy sama mujjantalu toog déwén dana am keneen ku toog te ma am njaboot ku ma war a tànn daanaka Ablaye mii laay tànn. te yaa ah, ñaanal loolu day ji seex la jaaxana lay tëddee. kan su ne woon kii moom ma fi teewal te parti bi. mais moo tax da ko war na préparer. mais am mais dafa am benn charte bu ñu waxoon ne moom la ñu war a signé ak ku ñuy tànn Assane. déedéet bu ñu fàtte tey bu ñu woon mii laay tànn. moom basam daa am sart bu ñu tànn. basam ban. président Macky Sall APR daa am loolu. comprendre bi kan tànn bu yàgg. kan la tànn. mu ne doyut mu yàqaat ko. kan la tànn kan man loolu la tànn ma ne ak lu mën a xew kon mu ne ko cinq personnes yii kenn fii toog loolu moom du lay. cinq personnes yii nee nañ. non cinq ëpp na cinq ah, mu ne ko trente personnes yii kenn fii toog nee dañ maa bëgg a woote nee dañ maa bëgg a wuutu ñaanal si trente personnes yi kenn bu ko defee sëñ bi ne ko waa trente person yi ku ñëw rek incha allah nañ doon njariñu réew mi waaye lànq bañ cee wax wax dëgg yàlla moom it lu doy waar na kon Ousmane Sonko li ko war la def nañ ko ñaanal bu baax moom it mboolem ko màggal si bésu màggal gi àttan na lépp na ko ñëpp ñaanal mu génn fee mu nekk dellu këram jubluwaat ci liggéey bi nga xam ne doon na ko liggéey pour Sénégal jëm kanam mu fas yéene ñi gën a jubbanti rang yi rang yi gën a jub ndax yi moom dëng na d'accord jërëjëf alaaji Assane Mesere tey moom alaaji googu ma lay wax xam naa ne ab lay jàlloo mu xaw a waaw mi ngi noonu euh, jaaj koy gërëm bu baax moom Assane Mesere ñoo ngi nuyu ajaratu béti mbub juuf euh, ajaratu béti mbub maa ngi jéggalu ajaratu béti ñoo ngi koy kii lamañee tàmm rek la lamañee tàmm maa ngi jéggalu ajaratu di la <laughs> ñaan yàlla jàmm ci màggal gi yëg nañu ni ñëw na Touba jërëjëf alaaji waa Ousmane Sonko def na poste Assane wax na ko am na tey koo xam ni ma nga ci këram toog danaan waaw Ousmane Sonko nu mu nekk defee poste te ma ci prison loolu jàqale ak njaaxare lay doon mais xam na jombul yow di nga xam te xeetu technique yooyu ni muy demee des fois nga bëgg wax dara ñu waxal la ko waaye daal ñaanal na gaa yi màggalug jàmm incha allah. waaw xam nga euh, Ousmane de prison yi moom defe naa ni ñoom Ousmane sonkook ak ñoom kii yëpp ku ci nekk euh, am na loo xamante ni bii mën nga ko. Mhm. boo ko bëggee def nga ko. Mhm. ne li ci njëkk mooy mhm. lu mooy li feeñ jamono jot jàmm mhm. euh, loolu gën xelu nit ñi le fait ñu ne Ousmane Sonko def na poste gën na tax nit ñi aussi tamit euh, daal di am loo xamante ni bi wax dëgg fa yàlla ànd nañ ci ak xel mu dal mhm. parce que nit ñëpp dañ ko doon ñaanal ngir Euh, li nga xamante ni bi kat mooy grève de faim man dama lay wax dara grève de faim man dama ko doon <laughs> dund du jour au lendemain wax dëgg fa yàlla sama xel mi dama doon wax ne lan mooy xew lan mooy xew xam nga bon dafa nekkoon mbir moo xamante ne bi mbir mu mbir mu diis la waaw parce que da ngay xam rek ne euh, Sénégal mi ngi woon ci guddi gu bët setagut mu nekk ci loo xamante ni bi maada day taali mhm. leneen mënoon na xew loo xamante ni bi du gënal kenn mhm. même ñi ko fa denc du gënal kenn waaye par la suite ci laa la wax ne la mhm. eh, man gëm naa ni état de santé Ousmane Sonko président Macky Sall la ko gën a maîtriser waaw man après loolu laa gëm dama gëm ni am na foo xam ne du ñu séentu mukk du ñu xaar mu yegg fa waaw dinañ wut yeneen pexe ngir loolu daal de dakk mhm. donc nag poste bi moom loolu lay wane day wane ni alhamdulilah mi ngi ci jàmm donc parce que dem na ba mën a tal nit ñi kuñ lay wax ne la euh, xib kii xim ximlu koon mi ngi fëleeg yooyu tey buñ demee ba lay wax loolu loolu rek am na loo xamante ni ci communication wane na ko mhm. waaw xam nga sànq Assane ñëw na ci président Macky Sall sànq ci li moom la def mhm. muy <laughs> euh, xam nga moo tax mu ne lim la wax noonu ne lu war a nekk la noonu la ko waroon doxalee dafa waroon a waajal mu demee ne ñaanal la sama candidat bi. mais su boobaa manduwul. déedéet am da ko waroon a dafa waroon balaa muy ñëw wala comprendre. avant ñëw loolu da waroon a régler problème. ah bu ñëwee kii laa bu ñëwee day indi nitam comme comme xam na ni bii mooy dernier am. mu ni kii moo tax. Mhm. Euh, ci programme am moom dafa jàpp ni mooy ñëwaat. ci programme alaaji carte boobu joué bàyyil carte boobu alaaji nga loolu mooy li nga xamante alaaji mm. am na lu nekk ci ginnaaw amul li tax ah. li tax li ne ci ginnaaw li tax amul alaaji ku ni nooy boree non non dafa am xam nga tey Macky Sall dafa neen waaw xam nga dafa am yeneen yu bari yu am ah. maanaam jamono ba jamono ji ñu nekk nii sooy bu xam nga déwén mooy ñëwaat. cela oh. ne veut pas dire que ni mën na nekkaan candidat non non mais déwén mën nañu pousse élection yi. Mm-hmm. te ñu ñu ngi ci liggéey boobu bu ñu poussé élection yi. moom ah. mm-hmm. voilà. mais lu fi am lu jar pousse euh, léegi léegi ban léegi léegi ci ban circonstance moo fi ne bu war a jar pousse élection mais c'est que dañu awut yoon. Euh, non moo fi xewlu ci dëkk léegi xam nga yow tey dangay ngay jàpp ni président Macky Sall moom mooy proposé ne nañ ma dama dama bëgg ngeen dolli ma. mais bu dee ñi war a dem élection ñoo ko proposé ne ko. ñoo ñooñu nuñ koy proposé parce que amuñu temps. ah loolu la ñuy wax moo créé lu tax. amuñu temps sept ans yi sept ans yi desoon ci dama la bëgg wax ne la c'est que il faut que ñu nangu ni. dafa teg mi ci situation boo xam ni fexe na ba ñii am nañ jafe-jafe. ci wàllu yoon mu am yoo xamante ni bii pour mu régler ko nekku ci. Mhm. ñii am nañ problème mu temps ci wàllu parrainage. yaa ngi dégg. waaw pendant ce temps moom it am na problème mu am candidat. yaa ngi dégg. Mm-hmm. donc am na noo xamante ne ba léegi mu ngi wëndeelu ci tànn bi. Ah kon donc narta tànn. Hmm. léegi nag nga jàpp ne mooy màggal si waat déwén. waaw ah. bu ko defoon xel nit ñi nag nu yëf di demee. su ko defoon xel daal mais en tout cas mi ngi ci yoon woowu. Hmm. xam nga en tout cas daal fi mu toll nii bu doon kuy ñëw Touba la. Ah. ma ne président Macky Sall. Hmm. Euh, tegu na ci autoroute bi ndax nag mm-hmm. day wàcc mm-hmm. euh, jaar mujj gi jaar baa mbay mm-hmm. wala day wàcc ki waaye daal mu ngi ci péage mi ngi bi loolu mooy li nga xamante ni moom laay wax waaw man moom bu fekkoon moom la war a ñëw waaye daal kii dama naan boo mi ngi ci autoroute à moom loolu mooy li nga xamante ni waaye bàyyi xel na nag nee na man damaa sàmm sama kaddu la ma waxoon waa mais mais léegi damaa sàmm sama kaddu mais xam nga yooyu yëpp sooy bu mi ngi dépendre xam nga xam nga tey man jàpp naa ne ci biir opposition bi ñuy wax. ñëpp ñu opposition am na ñu ci bari ñoo xamante ne bi am na lu ñuy. am na opposition mooy waxi la. waaw del xool nag après ñan ñooy njëkk parce que loolu dina am man gëm naa ni dina am ñu ne affaire bi xaju fi dinañ ko déclencher mu jaar par journaliste yi. ñoom ñooy njëkk a est-ce que élection dina am te commencé nañ ko wax. ndax lii ak lii ak lii ñoom ñooy génne piste yi. mais man de moom gisuma loolu lu tee yaa ngi dégg société civile yi dinañ ne pour kii est-ce que duñu pousse parce que demoon ko fi bëgg a defal Ablaye ay jamono ba Obasanjo ñëw ba ba Sidy Lamine daan ne kenn du ko fi nangu. waaw parce que un putschiste du ñëw di ñu wax nu ñuy defaree mbir yi. Mhm. boobu Obasanjo moo fi ñëw président Nigéria daan xaw ma pour ñu dolli Ablaye Wade ñetti at ñu ne kenn ko fi dolli ñetti at. Mhm. yaa ngi dégg léegi nag. est-ce que xam nga bële Abdoulaye Wade moo doon demandé mais bii bu fekkee ne dafa am ñeneen ñu koy dem ñuy demandé loolu feneen naan ngir jàmm ak dal maanaam liñ lay tegal ne lii moo tax. xam nga daan leex ne la pour pour lijjantiwaale problème Ousmane Sonko. lii wëg lii wëg lii comprendre nga. ñooñu ñi nga xam dañoo ànd ak Ousmane Sonko rek ñooy ñi leen jaaxal mais léegi ñooñu li ñu leen di dugal pour lijjantiwaat problème Ousmane Sonko foofu lañ leen di dugal. Mm-hmm. ndax ngir mu mën a ñëw ñooñu bu ñu leen ci dugalee dañ daan garaawul. Mm-hmm. Mm. fa lañ jëm tasanteeg 200 yi donc léegi bu defee ñu proposé ko mu mel ni ku ñu proposé ah. mbir mi <laughs> est-ce que doo kii mu naa naa ah, <laughs> yoon woowu jërëjëf Alaaji jërëjëf kon mi ngi noonu